ginnaaw kalaateeg ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom fukki tonn ammonium ca Beyrouth lu ëpp téeméeri doomu aadama daal ci ñàkk seen bakkan yéenekaay bi di l'observateur siiwil ni denc nañu quantité bu am solo ca Mol bu Ndakaaru ci loolee àllarba fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août njiitu réew mi Macky Sall ci réunion conseil des ministres sant jëruñ bi ñu denk biir réew mi mu daal di xayma bépp site bu ñu denc produit yu baaxul yooyee loolee waral bii digital TV di door ab jàngat ci site yooye nga xamante ni baaxul ci kaaraange askan wi ak ay moomeelam ñu daal di koy door ak Senchim fii ci Thiaroye. Senchim ñu fay liggéey seen produit phytosanitaire produit yooyu ñun waa Thiaroye particulièrement quartier Famara Ibrahima Sagna daf ñoo lor fa loraange tàmbalee ba fa mu jeexee ndax xeetu jàngoro bu ne dégg nañ ko fi ci wàllu asma ci wàllu euh, xa ñi jigéen ñi ëmb ci wàllu xale yi te leneen lu ci nekk rek am nañ ci ay confirmation yu wér a wér a seen chim ñu ngi ko tàmbalee xeex ñun waa quartier bi ci jamonoy Abdou Diouf bi muy nekk président de la République du Sénégal boobu amoon nañ fi kuréel yoo xamante ni ñoo taxawoon doon xeex pour li nga xamante ne mooy lor askanu Caaroy géej ak euh, département de Pikine yëpp ak région de Dakar yëpp ak Sénégal yëpp. ñu ànd takku di xeex kuréel di xeex seen chim ba ni ablay Wade dafay arrêté pour wax ne na fi seen chim jógee Djibo ministre ñëw na fii arrêté boobu. papier yooyu yi wane na Senchim état Sénégal wax na ko bul liggéey liggéeyati fii ci Senchim usine bi nañ ko fi jëlee arrêté yëpp xale yi am nañu kayit yooyu wér wér pour daal nga xamante ni li wér te wér mooy Senchim daf ñoo lor daf ñoo sonal man amee naa jàngoro joo xamante ni damay wax ne Senchim moom ma ko teg ndax bi ma fi dëkk see sama kër gii ma toog 1979 laa ko jënd. ñëw nekk fii ñëw taxu si fii en 1985 ñëw dem ba mu yàgg jàngaru dugg ma boo xamante ni soj mu dëkkaale laa àndal ak sëqët soo xamante ni su sax dakk loo xam wér na ma ne ci seen chim la jógee ndax amuma ko woon masul nekk ak man dem naa ba ànd ak jàngoro jooju te am na ñeneen ñoo xamante ñu ngi ci quartier bi jàngoro jooju seen chim mi lor na leen fa lor mën a yem muy ay mag di góor di jigéen di ndaw di jur gi bawul dara kon ci gattal seen cim daal lor nañu fa loraa nga mën a yem. lenn benn objectif lañu am mooy fexe ba li nga xamante ni moom moo ñuy lor nekk ci biir quartier bi ñu jëlee ko fi te loolu wax na ko amuñu jeunesse bu conscient lañu ñu fi nekk di taal ay pneu wala nekk di grève daxante ak gendarme ak policiers yi lenn lañ man mooy joxe suñu cri de cœur.

mag ñi ñoo ñuy gën a gudd fan bu fekkee ne usine bi dafa continuer nekk fii. man la Moussa Badji président du collectif euh, des habitants de la cité Favre Ibrahima Sagna euh, ñëwoon tey euh, waxtaan ak opinion nationale ak internationale ci situation bi nga xamante ne ni ñu ngi koy dund ak cohabitation bi nga xamante ne ni ñu ngi ko nekk ak industrie ICS Senchim bi nga xamante ne ni mooy filiale des ICS du Sénégal. Euh, lutte bi nag ñu ngi ko débuté depuis 2010 euh, euh, moment bi nga xamante ne ni dañoo toog benn moment ci koñ bi ñu gis ne dañoo bënn ay kër bënn ay mur ci anam bi nga xamante ne ni jaarul yoon dem corrompre ay borom kër bënn seen miir yi ndox bi di fa jàll parce que période d'hivernage la tombé woon jamono jooju c'était en 2000 2000 2008 2009 ñu am benn jour ci koñ bi ñu gis si euh, ëtt bi nga xamante ne mooy sunu bayaalu bi nga xam ne moo nekk ci koñ bi ñu gis ne ndox bi fa génn dafa xonk ba pare mu doy waar daal si anam bi nga xamante ne nii euh, mën na lor doomu aadama bi si moment boobu lañ jóg ne lii il faut que ñu wax si parce que depuis ay années euh, Senchim certes mu ngi doon def loolu mais dañoo dem ba benn moment ñun en tant que jeune ñu ne c'est le moment ñu jóg xeex li nga xamante ne nii non seulement mu ngi ñuy lor ñun mais mu ngi lor tamit suñuy famille suñuy doom suñuy jabar euh, ak suñuy maam ak suñuy yaay daanaka en tout cas bàyyiwul dara si li nga xamante ne nii moom moo nekk si koñ bi bàyyiwul garab yi euh, bàyyiwul euh, animaux yi kon doomu aadama yi ñun ñi nga xam ne ñun la ñu ne dañuy jóg xeex pour que vraiment situation bi jeex en mille 2010 ñu créer suñu collectif am ko am récépissé bi le 4 mai 2010 si moment boobu la ñu entamé suñu lutte dëgg dëgg dëgg dëgg envoyé des des plaintes administratives euh, au niveau des autorités euh, des autorités yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon à l'époque mu nekkoon euh, le gouvernement du président Abdoulaye Wade bu ñu envoyé correspondante yi à au niveau au différentes autorités à savoir moment boobu noonu le premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye moo fi nekkoon Euh, moom d' ailleurs moom moo ñu njëkk a répondre euh, mettre ñu en rapport avec euh, le ministre de la santé ak le ministre de l' intérieur ñoom ñi nga xamante ne nii protection civile mu ngi féetewu si intérieur la santé bi nga xamante ne nii amoon na sax benn centre antipoison boo xamante ne nii je crois dafa basé wu au niveau du ministère de la santé ñoom ñëpp ku ci nekk dañ la envoyé ay correspondance pour alerte la si situation bi nga xamante ni ñun moom la ñuy dund la ñu commencé def démarche yi nga xamante ne nii moom mille ñu def 2010 euh, 2011 ba deux 2011 yàlla def en conseil des ministres euh, du 20 janvier 2011 le président Abdoulaye Wade jëloon ay décisions à savoir après bi experts assermentés tey ñëwee def ay visites si biir site bi ak ci koñ bi ñëw nañ fi ñëwatu fi ñëwati fi te ay commission interministère ñoo fi doon ñëw bi ñu ñëwee saytu xool situation koñ bi nu mu tëddee ak coabitation bi ak li nga xamante ne nii moom la ñuy dund si koñ bi affaire bi ci boppam jaaxal leen bi leen jaaxalee moom ay rapport yu ñu bind rapport yooyu ñun yor nañ ko euh, rapport yooyu moom moo dem poussé ba le ministre de l'intérieur à l'époque monsieur Bekay Diop bindoon son collègue le le défunt ministre Djibo Leyti Ka pour que mu appliquer la loi parce que waa protection civile dañu bokkoon si délégation yi nga xamante ne ñoo fi doon ñëw di def pour constater au fait exactement lan la ñuy dund ci loolu la bindee euh, le ministre euh, Djibo Leyti Ka yàlla na ko yàlla yërëm si le fet que mu jël responsabilité am et que mu appliquer le code de l'environnement en son article article treize. foofu muy wax ne usine Senchim dafa war a sori population yi cinq kilomètres à la ronde loolu c'est sunu code de l'environnement moo ko wax mu rappelé ko le ministre de la de de de de de l'environnement à l'époque si moment boobu le ministre Djibo Leyti ñëw fii si benn semaine à deux reprises pour xool exactement qu'est-ce qui se passe bi mu ñëwee moment boobu Senchim ñoom dañoo tàmm bu fi autorité di ñëw wala délégation bu fi ñëw dañuy arrêté seen production di utiliser benn produit boo xamante ne ni dafay jéem a au fait nëbb xet bi nga xamante ne nii yéen ñi taxaw nii tey jii sax am ngeen problème pour réaliser int euh, reportage bi bi mu ñëwee ñu constaté machine yi taxawul mu ne leen dinaa fi ñëwaat le lendemain su ma ñëwaatee bëgg naa machine yi tàkk te bi mu ñëwaatee gis machine yi tàkk moom si boppam bi mu ñëwee dafa ne j'ai vu j'ai constaté je vais rendre compte si moment boobu en conseil des ministres bi ma doon wax nii léegi-léegi si la Ablaye Wade wax ne le président Ablaye Wade wax ne nañu fexe dans les deux ans et demi à venir que Senchim ñu fexe jëlee ko fi ba pare ne les industries polluantes yi nga xamante ne dañu nekk si zone bi ñu nekk nii tey ji dans les cinq ans et demi euh, euh, cinq ans à venir nañu xool nañ leen leen fi jëlee yàlla def en 2012. Ablaye Wade nguuram daanu le président Macky Sall la ñëw bi mu ñëwee ñu poursuivre suñu lut pour continuer alerte toujours si situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund jàpp nañ ne bu fi nekkoon le président Ablaye Wade bu fi nekkoon moment boobu ba léegi kon jàppoon nañ ne parce que vraiment amoon na volonté politique moment boobu jàppoon nañ ne usine bi kon heure bi fàtte nañ ko mais bi le gouvernement de Macky la ñëwee en 2012 ñu alerte encore informer encore Euh, le gouvernement et l'État du Sénégal si si même situation bi nga xam ne moom lañu dundu euh, ñu dem euh, amul nag institution bu nekk Sénégal te yëgul dossier bi parce que l'Assemblée nationale dugal nañ fa dossier bi conseil économique et social dugal nañ fa dossier bi le médiateur de la République monsieur Serigne Diop à l'époque dugal nañ fa dossier bi ak pétition yaa may dégg ak pratiquement institution yi nekk fii nii yëpp jot nañ dossier bi ci loolu en 2016 si nguuru Macky Sall mu am encore le président le le premier ministre ab la Dionne envoyé fi benn délégation ba mu amoon benn émissaire bi ñuy wax monsieur El Hadj Sall ñëwoon fii def reportage bu mag si moment boobu la ñu jëlee ne la jëlee décision que ne usine bi seetlu nañ ne mu ngi lor askan bi en 2016 mu am benn arrêté bu génn boobu le ministre Abdoulaye Bibi Diallo euh, Balde euh, Diallo euh, bi Bibi. Diallo moo nekkoon ministre de l'environnement mu génnee arrêté portant la fermeture de l'usine Senchim et que Senchim mu arrêté tout activité de commercialisation de conditionnement de production de de de, de stockage ak tout ce activité mais arrêté bi loolu la wax ñun si arrêté boobu la taxaw tey 2016 la arrêté bi génn Senchim continuer di def lu muy def malgré que machine yi taxaw na mais ñun dañu jàpp ne dafa am manque de volonté politique bi nga xamante ne état du Sénégal moom moo ko war a def si Senchim parce que Senchim ñun dañoo jàpp ne c' est un danger public Senchim c' est un hors la loi Senchim mu ngi jalgati di salfaañe suñu code de l' environnement di salfaañe suñu constitution en son article 21 euh, si li nga xamante ne ni ñun dañu am droit am un environnement sain comme ñëpp alors gouvernement du Sénégal loolu def nañ ko référendum ñu voté ko kon pourquoi ñun doomu Caaroy tey ñu war a yellool loolu gouvernement de Sénégal di seetaan tey ay doomam di loru si li nga xamante ne nii du dëgg du yoon ay benn usine nekk fii à caaroy sur euh, pratiquement di utiliser ay produits chimique ay produits toxiques à ciel ouvert teg ko fi pendant des années population bi di alerté wu depuis boobu ba léegi di wax à ce que ñu may leen ñu dundu dundu bu normal état du Sénégal taxaw di seetaan ñun nag état du Sénégal la ñu joxoñ baaraam parce que ñun dañoo jàpp ne moom moo nekk si ginnaaw Senchim parce que Senchim warul mën a am sañ-sañu ñu bind un arrêté ministériel pour que mu tëj usine bi muy continuer di mener ay activités ñun loolu lañ jàpp ne du dëgg du yoon et que loolu population Thiaroye dinañ taxaw pour xeex ko même fii ak vingt ans dinañ taxaw pour xeex ko parce que dañoo jàpp ne ñun ñoo nekk ci dëgg population Thiaroye ñoo nekk si dëgg parce que am na un un arrêté ministériel bu génn portant sa fermeture et arrêt de toutes ses activités loolu nekkul di am ñuy ñuy ñuy ñuy woo en témoin l'opinion nationale et internationale si li nga xamante ne ni tey jii ñun moom la ñuy dund à Thiaroye-sur-Mer et que ñëpp nañ ko xam que ne ñu ñuy tooñ tooñ si tooñ bi nga xamante ne ni mënoon nañ ko fajal suñu bopp parce que ñu génn. Euh, mener des activités yoo xamante ne ni euh, dafay euh, dafay engendrer wala dafay agressif si côté boo xamante ne ni dafay lor benn partie population bi parce que boo leen xoolee Sinthiou fu mu nekk y la route nationale juste à côté tey ji bu ñu génnoon ñun war ko lijjantil suñu bopp day métti dina métti trop parce que ñii jaar poste Thiaroye yi jëm Tëngéej dañuy jël seen wàll si li nga xamante ne ni loolu la Sinthiou di liggéey. muy dugg ci seen organisme di leen rey ndànk-ndànk te ci côté boobu laa bugg dugg tuuti parce que y a un membre du collectif du nom de Pape Souleymane Ndiaye il est un ancien directeur de la santé de l'État du Sénégal moom si boppam clinique mu ngi fii à côté d'après ay consultation dafa seetlu ne patient yu muy consulté ñu si bare bare bari dafa am leneen lu rax ci seen feebar bi mu demee ba si biir la xam ne Senchim bokk na si liy lor doomu aadama bi tey jii si li nga xamante ne ni noonu lay dundee fii si biir koñ bi ci loolu nag mu décelé si li nga xamante ne ni loolu la émanation yi di def si biir organisme mu ne produit chimique bi fi nekk lentement lay nekk di dugg si organisme doomu aadama bi au fur et à mesure muy dem mu koy lor di ko lor di ko lor ba keroog dootu dootuñu ko waxati ci loolu mu gis ne ñi nga xamante ne ñoom lay consulter ñii dañuy am ay problème seen bakkan di xasan ñii am ay problème seen bët dafay day saf di métti à tout moment seen seen gorge yi dafay wow yaa may dégg euh, suñu jigéen suñu jabar yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñenn ñi mais y a pas mal de yoo xamante ne nii def nañ fi ay fausse si anam bi nga xamante ne nii jamono jooju noonu tey jii da ngeen fekk peut-être produit yi euh, liggéeyatuñ ko trop trop mais buñ ko daan noy mais ñu si bëri dañ leen daan évacuer hôpital ñenn ñi nga xam ne dañu am moyen tuxu nañ ñenn ñi dem nañ à l'extérieur faju ji mais ñi fi nekk tey seen maamaati maamaati maam ñoo fi sanc kër yi ma fàttali ne Senchim en 1987 lañ fi installé wu si benn usine bu ñuy wax bu ñu daan wax ESSEPC ñooñu à l'époque si engrais lañ daan yëngu Senchim bi mu ñëwee en 1987 si la commencé mener ay activités am Senchim mujju di produire. mujju di conditionné mujj di commercialisé alors que loolu amu ci yoon amul benn demande bu ko autorité yi jox pour que Senchim mène ses activité pour wane la ne ñoom seen jëmu bopp depuis des décennies ñu ngi jalgati yoon jalgati suñu code de l'environnement te loolu noonu autorité war ñu ko seetaan te li may wax ni ce sont les experts assermentés de l'État du Sénégal ñoo ko wax sur des rapports que seen Senchim depuis des années dafa nekk di jalgati li xamante ne ni mooy yoon moo tax ma jàpp ne ñun ñoo nekk si dëgg et nag nañu population nationale ak internationale déglu pour que ñu ñëw jàppale ñu si xeex bi nga xamante ne ñu ngi koy xeex parce que ñun dañoo jàpp sax l'État du Sénégal mu ngi seetaan mu ngi def euh, non assistance à des personnes en danger parce que l'État du Sénégal dafa signer ay convention au niveau international jëm si protéger ay population jëm si sécuriser ay doomam bi ñu demee nag ba tey jii état Sénégal si boppam nanguwul respecté loolu ñun ça nous pose problème et que loolu xeex bi dina egg fu mu war a egg pour que état Sénégal jër responsabilité am si situation bi ñuy dund récemment à Liban il y a plus de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium yu fa explosé si benn entrepôt si port bi mais loolu noonu ñun ñu ngi koy dund fii à Thiaroye sur tey jii fu ñu toog nii si ginnaaw nii il y a plus de cinq cent tonnes de déchets toxiques yu ñu stocké fii si biir hangar bi fii ñun ñuy dund ak moom ñu bëgg ñu gëmloo ne parce que démb maa ngi déglu le directeur de l'environnement et des établissements classés monsieur Baba Dramé mu bëgg ñu gëmloo ne am na ay hangar yoo xamante ne sax buñ ko defaree mun nañ fa stocké produit bi ñun loolu nanguwuñu ko te loolu mënuñu ko dégg problème bi mooy moom wax na ko si benn interview bu mu def. le 13 août passé dans le jour si euh, si euh, journal Sud Quotidien mu wax ne ñu siy bàyyi xel que bu fekkee ne Senchim dafa continuer di mener ay activité am après la sortie de l' arrêté Senchim mu ngi jalgati yoon et que état du Sénégal dina jël ay sanctions lal ko ci kawam moo ko wax mu dellu ne Senchim lenn moo ñu lié ak moom mooy arrêté ministériel bi te arrêté ministériel bi wax naa ko sànq dinaa ko waxaat arrêté bi dafa ne usine bi na tëj. depuis 2016 depuis 2016 usine bi war a tëj le ministre Abdou Karim Sall ñëw fii. mu ñëwee mu constaté ne y' a 500 tonnes de déchets toxiques sur le site moom moo ko wax ba pare ne c' est un danger pour les populations bon ñu doon xaar à ce que l' ta gaaw vraiment résoudre problème bi si moment boobu la ñu doon jéem wax ne le président de la république nee na nañu fexe ni ñuy incinérer produit ñun le fait ñu ne dañuy incinérer produit ñun loolu du suñu combat suñu combat mooy lare l'arrêt définitif des activités et la fermeture de l'usine Shenchim le ministre Abdou Karim Sall loolu la war a xam mu xam ne c'est un arrêté qui a été sorti pour l'arrêter pour lare et la fermeture de l'usine Shenchim usine Shenchum dafa war a jóge ci habitage ci zone Thiaroye ñun foofu la ñuy xaar état du Sénégal bu ñu bëlëfee ne dañuy incinérer ay produit produits yooyu ñun dépassé nañ foofu dem nañ am nañ dëgg que ne usine bi waratu fi nekk et que le directeur de l' environnement et des établissements classés nee na même instant bi même Senchim bu fekkoon ne sax dafa war a continuer ay activités toujours si reportage bi mu def Sud Quotidien dafa ne usine usine genre usine yu mel nii waratuñu cohabiter ak habitation yi moom moo ko wax te loolu mooy dëgg usine Senchim dafa waratul nekk si fi nga xamante ne nii foofu la population bi nekk léegi nag depuis boobu noonu ñu toog di xaar pour que état réagir nu mu gën a gaawee waxatuñu dara en 2020 Senchim en tout violation des chartes ak code yi nga xamante ne ni moom la wax ak arrêté bi Senchim di tabax ay hangar yu bees si biir site bi te xam nañ ne site bi dafa contaminé hangar yooyu moom ngeen di gis si ginnaaw ni ñu profité defar ko en un laps de temps ñu jàpp ne loolu vraiment ñun yëfumaa tey lañ ko jàppee et que état du Sénégal moom moo seetaan loolu parce que nag ñu ngi woote pour laajte kan moo joxe autorisation pour que Senchim tabax hangar yi parce que le sous-préfet bi ñu ko alerté dafa ne man ma fu demande amee ba ñoom ñuy def ay hangar ñu dem si monsieur le maire de la commune ñu laaj ko la même question mu ne moom musul yëg ne wala musul joxe autorisation pour que ñu defar hangar yi loolu moo lay wan ne kon mu ngi violé wala mu ngi jaay doole même nos propres masis euh, nos propres représentants seen sim faalew leen maire bi jox na ko sommation pour que mu arrêté travaux yu muy def mais boobu ba léegi nii amaguñu réaction par rapport à ça le sous-préfet moom après ñun bu ñu saisiree le préfet du département de Pikine mu mettre ñu en rapport ak le sous-préfet ñu alerter le sous-préfet jox ko benn mémorandum mais sentir guñu réaction am alors que ñoom ñooy suñu autorité ñoom ñoo ñu war a wax tey ñun naka la ñu war a taxawee si loolu nag ñuy lancer un appel au président de la République parce que récemment au Liban bi fan nitrate dama jëm bi explosé dafa woote wala mu bind pour massawu doomu dëkk boobu waaw kon nag ñun lu tax ñun ay propre doomam ñun nekk si biir dëkkam di dund situation boobu noonu ëllëg si biir tey jii mari taale taali ñaanuñu ko yàlla bu loolu amoon tey caaro yi dañ koy rey si cartographie Sénégal wala mun nañ ne Pikine parce que si danger lañ nekk xam nga loolu la ñuy woo état du Sénégal surtout le président de la République fu mu demee tey bay joxe ay instructions pour que nitrate d'ammonium wala d'ammoniac bi nga xam ne moo nekk fii au port du Sénégal ñu xool ni ñu ko fa jëlee gaaw gaaw maa ngi dégg le pré le le le ministre Abdou Karim Sall moom tamit mu ciy niir ne noo euh, produit boobu kenn du ko yóbbu Diamniadio moom mu fàtte ne problème mu Senchim mu ngi fii à Thiaroye te moom moo wax ne y a 500 tonnes ji nga xamante ne ñu ngi koy stocké fii moom dafay fatte ñun ñu koy rappeler mu gaaw si li nga xamante ne nii loolu la ñu war a def pour que usine bi tëj. ñun nekk ñu fii di xaar ne ñu ngi waxtaan ay cimenterie pour ñu xool naka lañuy ñuy ay produits ñun tolluñu foofu usine bi dañoo génne un arrêté ministériel pour que mu tëj ñun loolu lañuy xaar état du Sénégal na tëj d' abord après ñu doogul lijjanti leneen te Senchim si arrêté bi en son trois 3 dafa ne seen Senchim moom na jël ay propres moyens pour mu xool naka lay déménager ñun foofu la ñuy xaar état du Sénégal foofu la ñuy xaar état du Sénégal léegi nag suñu problème loolu la. population bi ñu ngi koy dund euh, teg nañ benn plateforme boo xamante ne ni daanaka doomu Caaroy yëpp ñu ngi si si fan yi néew incha allah euh, li ñëpp def mun nañ ko def ah, mun nañ ko def te état Sénégal bu fekkee ne réagiwul si moment yi nga xamante ni moom la ñuy dund ak hivernage bi nga xamante ne seen Senchim da doon bënn ay kër jàmbur di fa jàllale ndox bi muy génn xale yi di foo si suuf si mu leen di lor ñun loolu lañ jàpp ne dootul continuer engare yi ñuy tabax fii nii yëpp yu bees la. kan moo joxe autorisation yi nga xamante ne ni moom moo tax tey seen ci am sañ-sañu jalgati ñun suñu code de l'environnement jalgati sunu sart réew di def lu muy def te kenn waxu ko dara kenn waxu ko dara état état du Sénégal ak le président de la république la lañ si alerté euh, di si alerte son premier ministre déggal son ministre de l'environnement Abdou Karim Sall pour que vraiment euh, nu mu gën a gaawee nañu wax si problème mu na nañu wax si problème mu Senchim parce que ñun loolu mooy suñu problème tey